العبادة والخدمة دي جامو يالا أكلي الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك دارة دي مانجلين دي نين دي نزيار دي كو تكي لخول سرين خادم سرين خبان يالا يالا نمو نيان يب موكي يالا نكو يالا بولي دم موكي ملاج نين دان نيك لغا war faa jóge dem njaaree muy laaj na xam bis boobu mën na ngir bu beneenee mu fay ko waaw diggante boobu de musaafatu xasri mat na ko diggante bi nga xam ne ku ko dox sañ a wàññi waaye li tax mu saña dog bis boobu nag mooy mu jógee ca dëkk ba balaa fajara jot bala ñoo wax jàpp jot na fekk mu génn dëkk ba suba mën naa ba yéene bañ a woor waaye bu fanaanee lu ko ba asamaan seen nag mu door faa jógee dem njaareem moom du sañ dog day woor su àggee njaareem nag bis ca tegee mu ne ci tukki bu fa dul yàgg sañ naa dog waaye bis bi nga xam ne ci lay tukki su bëggee bañ koo woor day bàyyikoo ci dëkk bi lu jiitu fajar wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax weer mënis na ko séenu ci ay jumtuwaay waaw weer de li ci sax ci mazhab bi moom dañuy tuddee ar ruya bil aynil mujarrada lañ ci santaane gis ko bët gis ko bët daal mooy la ñu sant nit donte nag am na ci waroom xam-xam yu gis ne Eh, jumtuwaay yii nga xam nañ ko jëfandikoo moog ay neeb yu ne di takk ñoo yem eh, du la wan lu fi nekkut kon ku ko amee jëfandikoo ko da lay dimbale ci gis gi waaye boo ko gisee jàppal na loo gis ak bët la waaye nag nekkul loo xam ne faaw dañ ko war a wuti waaye bu amee nag mënees na koo dimbandikoo moom ngir seen weer ndax bu fi weeru nekkut moom du la ko wan waaye mën na fa nekk sew moom mu réyal la ko ba nga mën koo gis wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na da doon julli timis imaam rawee ko benn rakka mu dikk ànd ak moom rakkam ñaareel imaam toog di taaya muy laaj moom ndax bu toogee day ànd ak ilimaan di taaya wala day toog noppi day toog ànd ilimaan di taaya li santaane mooy saa boo ñëwee ci julli fekkal ilimaan fu mu nekk lu mu def nga def ko bu sëlmalee nga mottali lan ma lam na ray woon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee ñoom ñoom ñu nekk bitim réew mbas mii fa tax nee na am ñoo xam ne ci maire yooyu dañuy def ay dimbali nit ñi mu laaj ba xam koo xam ne moom loruwut ndax sañ na faa dem di sàkku ndimbal laaj de ci boppam lislaam day tere ku koy def ci lu dul lor aajo ju tar moo war a tax nit tàllal loxoom di laaj kon yooyu moom ku loru ba nga xam ne nii xëy na boo fa demut sa dund dana metti ndax xat-xati jamono sañ nga faa dem laaj waaye bu fekkee nag du lor moom laaj ci boppam dañ koy tere nit ku koy def ci dul aajo wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku jël wérdu maaxuus te mënta matal sart yi ndax day waral mu bàyyi ko wala mën na caa jàpp rek boobam koy mën a matal wérdu maaxuus ku ko jël daa war a def yitte ci matal sart yi ndax nekkul sart yoo xam ne matal ko daa të wala dafa nekk lu jomb bu mën a nekk la lu jàppandi la ci ku ko yàlla jàppandal te mooy koo xam ne pas-pasam dëgër na ak yéeneem su ko defee nag saa bu ko ngant dabee ba mënu ko matal nag waa jéggal nañ ko waaye na daf yitte ci xam ne da ko war waaye bu jàpp rek ne li jafe na ci man eh, mënuma ko matal déedéet yitte la ci def ki ko jël war naam am yitte ci xam ne sart yiñ ci sart bu ci jafe-jafe gu jéggi day amu ci kon bu ci defee yitte rek yàlla mën na ko dimbali man ko matal loolu mooy li ko war wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku ànd ak nit tukki nee na mu faatu waaye gisu ci moom menn màndarga muy xam ne ne jullit la wala du jullit muy def loolu moom fii nu toll nii gëw mu ne mën naa am ndax kuy tukki moom dee da ngay jaar ci jaarukaay yi faaw da nga yor bu ñu xoolee saw tur danañ xam saw tur loo doon loo xam ne moom fii ñu toll gëw ne mën naa tukki it nga xanaa ñaar nit képp képp duñu di ko def bu dee ñaar dong ñu ànd di ko def it war nañoo seq lu tax ñu xamante ba bala ñoo ànd tukki Eh, bu fekkee ñu ñaar dong ñoo ànd te xamante lan moo leen boole bañ ànd bu fekkee ñeneen nañ ca mbooloo it ku ci umpale ñëpp du ci jàppandi bu ci loolu lépp amul nag eh, buñ xoolee ay pièces am danañ xam kan la wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na jigéen ju jëfandikoo werdu maxuub ndax bu seetut dana mën a wéy di ko jëfandikoo waaw bu seetut day wéy di ko jëfandikoo ndax laab shartu sixa shartu kamal la ci yerd ci yerd wi laab shartu kamal la ci waaye nekku ci shartu sixa bokkut do julli mi nga xamne euh laab shartu sixa la ci bu laab amul julli do du am mom nak laab gi day tax jëf ji gëna mat waye ñàkk a laab du tay jëf ji bax motax jigéen ñi bu setutit day weyi di def yu maaxuus wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na laaj buñ fi waxoon ñu bokk ab société génne muurum koor ñëpp mu ne ñoom nee na niñ koy génnee duñ ko bind fenn ndax boobaa dina wér loolu leeru ci man ab société nan lay liggéeyee ñuy fere ci alali société bi te duñ ko bind fenn loolu xaw na ma jaaxal jàpp naa lépp lu génn ci alal danañ bind ne génn nañ nangam nangam ci dañoo xam jëm buñ leeralee ne ñoom ñi ko moom ñoo ko jariñoo loolu day dugg ci seeni seeni seeni fere waaye wax ne day mel ne kon kuy liggéey mën a jëfandiku ci alal ci la ngay jëfandikoo du am trace loolu jàpp ma ne liggéey bu jaar yoon dana demee noonu loolu jàpp ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa bokk ci gaal xam ne eh, kenn ku ne da cay teg su ko defee ku ci bëgg ñu lebal la mu ne waaye nag bu la lebalee lu mel fukki junni dañ lay wax ne bu weeru dee boo fayut dañ dañ lay dañ ci dañ ciy teg juróomi téeméer mu ne juróomi téeméer yooyu nag bu teg bi këppee dañ koy séddoowaat muy laaj ba xam loolu riba wala déet waaw bépp bor bu jur njaay ndeg riba la saa boo lebee leen fukki junni mu fay la teg ca dërëm riba la kon li jaadu mooy eh, nit ki lim leb dong la war fay saa buñ ko lebalee dara leb moom dimbalante ngir yàlla war a doon waaye wartu doon luy jural njëriñ aji leb lañ dafa war doon loo xam ne moom mi leb dong moo ci jëriñu njëriñu zahir waaye ki leb la moom tuyaaba la ci war a séen ci seen leneen ñoom na dañoo ne kees googu day jëriñu ci li ñu la loolu na mbokk mi laaj nee na ku sàccoon daay de moom yàgg mu rëcc delloo si ko ndax atteb sàcc day war ci kawam xam nga atteb sàcc mooy ñu dagg loxoom fekkee lim sàcc mat na rubu dinaar waaye fii moom loolu du atte fi daw kon bàkkaaru sàcc mooy na ci loosam saa yoo ko delloo nag jéggulu kam sàccoon bu ko jéggalee bàkkaar ba teg ko na ko wallahu taala alam mbokk mi lay nee na ku doon tukki woor ndax bu mettee sañ naa dog loolu ci tukki ak loolu tukki nit ki su wooroon ba àgg ci foo xam ne bu dugut mën naa loru benn sopp nañ mu dog wala sax dog da war bu fekkee àgg na ci lor joo xam ne bu dugut moom lor lor dab ko lolu ku ku tukki ak ku wul ñu ci yam ay bu fekke nak metti metti bi dong la mom yuñ koor baaxoo andal mom du sax du a dog ngir lolu su bëgge baña baña wor da fi dafiy ñeek fajar bi jot su ko defé buy dem mëna baña wor waye metti tu méttitu koor rek bu fekke aw metti dong la ay ba àggee na ci nara lolu mom bu ba sañ na dog wala sax day ag fo xam dog da koy war wallahu taala alam mbokk mi laaj naafila gi ñu def ci wirdu maxuus fukki rakka ak safa witr yi ndax manis na koo def njëkk ñuy julli gee euh, julli googu naafila googu ginnaaw julli gee lañ koy def ci gee lay topp faw dañuy julli gee ba noppi gar ko def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne daroon ngoro jigéen ngir bëgg koo takku soxna ne ko nag bis bu ma la takkee boo defee nangam dinaa la fase nee na nag mu takku ko ndaw sa def loola ndax pase ma day tàbbi wala déet parce que du tàbbi ndax faseekut dane ko boo defee nangam dinaa la loolu lu la bu fekkee ba mu defee loola fase na ko kon fase ma tàbbi na bu ko fasewut wax na lu dëgg ndax moo waxoon ne bu defee nangam mu ko waaye loolu da koo diggee diggee ak fase lu bokkut ak nag boo defee nangam fase naa la ñaar yi bokkut léegi moom da def li mu wax ne dinaa ko def nag mën na koo def mën na ko may def wallahu taala alam mbokk mi laaj lan moo war a nekk taxawaayu jullit ci lay xew Filistin mooy naqarlu ko ak di ñaan yàlla fu mu toll sunu borom teggi tiisoo loolu mooy warteefu jullit bu ne ndax la fay xew munkar la te munkar eh, yonent bi aleyhi waxoon na ne ku ko gis na ko dindi ci loxoom wala ci làmmiñam wala mu bañ ko ci xolam kon naqar la ci xol mu nga man ak ñaan yàlla mu teggi ko wallahu taala alam ku woor lekk suuf tuuti ci suuf ndax daan dog koram waaw suuf luy eh, attab ñam la ci ci woor fekkoon ak pënd moom la yàlla moom pënd dañ koy jéggal nit bu fekkee lekk na suuf soo ne eh, daa jàll ba ci biiram moom koram da yàqu fay da koy war bu fekkee ne tey ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ci charia dagan na nit am ñaari soxna bokk ñoom di fanaan ci benn lal l'islam de li muy tere mooy di jaxasoo kenn keneen ka ne fa moom waxuma la lal waaye mu ne ci néeg rek dëgg néeg bi ñu jaxasoo soxnaam kenn wul faa nekk ma bokk toog nag toog rek loolu l'islam du ko tere ndax yu soxnaam lañ waaye bokk di ci jaxasoo kenn keneen ne fa loolu la l'islam di tere wallahu taala alam mbokk mi ngi laaj nee na dañoo wax ne ku laal jigéen am ca bànneex njàppam toj na mu ne bànneex boobu nan lañ koy màndargaale bànneex yëg-yëg la bu nit ki yëg mën naa bañ a ànd nag mel na màndarga waaye yëg na ci biiram ne laal gim laal jigéen ji am na ci bànneex yaramam am na lu ci yëg loolu mooy bànneex nga xam ne loo xam ne daal bi mu laalagul yaram bi yëgu ko woon bi ko laalee la ko yëg képp ku def loolu njàppam toj na wallahu taala alam